bismillaahi rahmaani rahiim barki borom tuubaat jugat nañ di santaat li ngir yaa fi gënu te ñun mbàkke yaa baax ci ñun sant nañ jugat nañ di santaat li ngir yaa fi gënu te ñun bakke yaa baax ci ñun sant nañ rawee nañ ci yow mbàkke yaa tax ñu raw te yaa may ñu tawfeex de ñun sant nañ njariñ jam ñi yaa def ko yaa say xanaa njariñ jam ñi yaa def ko ñun sant nañ fajug aajo yaa yor ko yaa say xanaa te yaay sunuy aajo ñun sant nañ pexem jam ñi yaa yor ko yaa say xanaa texe nana ci yow Mbàkke ñun sant nañ borom màggalu Tuuba santay li war ci yow faw Mbàkke yi dañun sant nañ ruyi jam ñi yaa yor ko yaa seyxana yëram jam ñi yaa def ñun sant nañ wallaay ñun de xam nan ñi yaa seyxana dugun yow de dul baaxle ñun sant nañ wallaay ñun de xam nan ñi yaa seyxana dugun yow de dul baaxle ñun sant nañ mujjug jam ñi yaa yor ko yaa seyxana ci yow rekk la ni mujjee ñun sant nañ Tuuba ñel na mbooleem ku jub bëgg la Bamba yaa gën ci ñun sant nañ wilay way ma way say xanaa Bamba mi ci jant si ji way de ñoom sant nañ ba yit yi way man aw maamu kooru te naa way ku man say ñun sant nañ ami xeewal ak mucc ak gudd faru de lay dellu ñaan amin ñun sant nañ yeesal naa sama cant delluy dagaan ci ak jekku màggal gi ñun sant nañ yeesal naa sama cant delluy dagaan ci ak jekku màggal gi ñun sant nañ ma dellooti man seex te jóggee di way ma dellooti man seex te jóggee ma way ka jar kañ ta da moom laa di way borom màgg gaag yéeme gaag sell gaag borom màgg gaag baax gaag naa ko ci borom muñ mu neex ma te kàddoom ga neex te kaalaam ga jot lool de moom laa di borom kaala googe waral kaala yi ku tal kaala waati na koy sant borom dalli karabat moo tax ba léegi maraaki di sant ak borom fituwa ak ngorga ak jom ja cey borom jom ja jomal ak aj ñu wey fitam waa waral tey ñu am fitu rey te mooy màggalam gi damam laa ngi cey gaa waral it ñu doomi gor dogoo nak gorom gaa ñu doomi mooy ñu dellooti santaat na yaa say xanaa amoo maas moroman tiw nit ñu macha allah olofel bi am na solo amul maas borom Touba kenn la Serigne Moussa Seye xam naa rek bàyyi laat bi bu ko defee da nga wax rek fa kilo solo rek ma daal di ci wutal seen cànnaar bi incha allah. daa taaru lool taarkalla njàng bi macha allah na pësteef olofel bi neex na lool ak at yi nga am ni mu néewee nga mën lii ci xasida yi macha allah yàlla na saa borom gën laa dëgëral maam ban nga ci am. mbooloo mi yëpp bëgg la macha allah murid yëpp la bëgg ne man fu ma la déggee nga naan jàng ci géej waaye dem barke Cheikhul Khadim dama laa bëgg sama boobu macha allah ndax dangaa dangaa imposé ba noppi nekk gone ban yëg nga am ci loolu. waaw loolu moom daanaka Sëñ Tuubaa bëggeel gi ma nit ñi bëgg du sama yëkkati ko du sama dara lépp Sëñ Tuubaa la wallaay lazim loolu daal moom Sëñ Tuubaa la ndax dangay romb sax nit ñi naan Sëñ Musaa ngay romb nii nit ñi di la nuyu du bu ko jàppee dara loolu yëpp danga koy jàppee Sëñ Tuubaa rek ak xas yi ngay jàng la rek waaw. waaye loolu daanaka ku xamul àdduna du xam tey mënoon na nit ñi jublu la uh, ak ni nga nekkee gone waaye taarkaa la danga am yar am ay teggin macha allah ay ci bu ko defee nga bëgg laan ñu rek mbokku téléspectateurs yi lay seetaan bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim aji tufatul fi tawsili bi asmail mufaddalin alhamdulillahi wa salla على الذي بي لنا الهدى بدا الحمد لله وصلى بدا على الذي بي لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآله وصحبه ذوي النوال الوالي هذا وإن اليوم ذو توصلي له بأسمائي zawi tafadduli fa qultu ya qaribu ya mujibu salli ala allazi bihi tujibu qabal bihi nazma ya hazal ya karim wa habbi man bihi yunaji mayrum rabbi bunqan bi ibrahima lighfir zunubi waqfina rajima wa kun min musa wa bi janni sawaqin dun ya wa qurabu sawu bi muhammadin rasulillahi alayhi salawatullahi summa alayhim la bi mana إسلام الإحسان بخدمة صدق والفاروق جلي بإخلاص وتوفيق بحق عصبان حق نورين وبعل والد ستين قبلي في الدنيا ما أخرى أمر الخلع وهو المزايا بياقة القضاء بزبيري وقسالة نجني من ديري وبساد ومنع في نجني من كل ما أخافه من فتني وبأبي عبيت تكلف ما يفيد إلى جنب وقف عني ما يبيد بحق عبد الله نجل العم عيود العباس كسر علمي بحق عبد الله نجل الأمراء عنك فيه دبا ما يدور درر أبو بن مسعود وجعلني سلام قني بلا وزرع عني وقلم يا ربنا بقمة قباس وقمت عني فوق لباس بقمة القسم والقسم الجلي في دار النبي بقمة القسم semua semua tairi sebijua riya mada mari bukun mati tabi Ibrahim ani malayal bisra wa tikrima bi jaqibati mada afti nafsi an kulli ma yaduruni laqabsi wa bi ruqayyah wa zanaba fana atarda wal adab kullu zamani wa amani dunya wa qrabi karam bi ummi kul sumin wa janibuni naqam bi awsinin amirin wa armi wa aqmu sikhtaha bal kalimi wa bi rabbil qalbi wa bi ja'il sadi abi istiqamatuna qaim awadi ya amir ibn abd الرحمن وبابي مسمد الخولاني جلب فرن وسادة وليل الململ والعبادة بقتل بسر قبل الورى والإسراق من وي والبدع وبعبي قريت وببلال وبشغن برب جل بنا الوطن يقبل سني من داك سرا وجنب أبي الدراء بقرمة المقداد سبق قلد وبزبر علني مقاسر وبعمر المؤمن نقم راقنا مكر وسقر وقر رابق قاعد المجاهدين غنينا لزعان لنا بحقي سعد وبحق عروة جنين تمسكن بصقر بقمد قاسم سبق رجا زين قبل متبع مناج وبابي بكر وقد لق زنين يفر لن ما لقوت ناقي وبسليمان قني كدلق وكيد قيرقي وكل يا معين بأمنا خديجة قبل الأمل في القلم والأدب برب والأمل بأمنا غاقسة قني يمل يضرني في الأرضين والسمل بأمنا خفت قلبني أبد وبنا ما جرزعا ونكد بعمن عزين بزين ما زقر مني وما بطن وجعلني وزر بمالك وصافعا وعبي خنفة وعمد لسكبي بجاخ جبل سكب سؤالي وبلغني مبلغ رجالي بجاخ ميكائيل قبل نقما ونقي يجعل مستقيس كرما بجاء إسراف لا بيشما وغفنا أوالي من قمة بجاء عزراء لكل يد من طلقات وكذا بدرا وجل توصل لميدو بيجي سنغادر دار وخفي لبيجي وليجد ولي التي دعاني لنصبي بالامر رضوان وبسعادتي وبالقماية عن جملة الأزواج والقناية وبالنكات من سؤال وعسى وسكرات متربى القصب بالنسارة وبشرور نمامتنا وفي النصر والسليم وسلما على النبي وعلى مع صحاب النبي واغفر لولي نقل جميع عقلي وجملة سحابي اسمي واغفر لكل ذي تعلق يا واقعا سعادتي يا ربي قلت بنا وخويتنا وكلنا وقبلنا خذ القدام ربنا وسليا على النبي وسلمين واقض بي حاجة كل مسلم وسلم على نبيه وسلمه واقض بي حاجة كل مسلم taarkalla njàng mi neex na loolu ànd nag pësef macha allah bëyit yi ni nga koy waxee waaye dafa mel ni njàng mi nag yombul air bi daa mel ni xaw naa jafe lool nan nga koy dunde air bi waaw air bi moom daanaka sëñ Abdulaat Kundul moo ko jàng sëñ Ablaat Kundul moom laay roy ci toxfatu bi maa ngi koy ziar baax sama papa jooju di ko ñaanal mu dund cent onze ans heure bi moom waaw jafe na jafewul ndax tar yeeg yooyu waaye daanaka min nañ ko jafewul de ndax boo mokkalee xasida gi rek daanaka jàng bi du metti Baye Moussa Seye bëggoon nañ xam moom ñaata heure maanaam lay lay jàng ñaata heure loolu est-ce que mën naa kaa compter man moom daanaka lu ma dégg mu neex rek dinaa ko jàng ñëpp bàyyi ma dara olofali tamit yaa koy kël sa wala erreur erreur boo xam ne da koy dégg ci. comme ma dégg sama papa naa Mbaj wala Sëñ Xaadim Guèye sama papa Mara sekk ñooñ ñu jàng olofal laa jël déglu ko bind ko daa koy jàng. ah Serigne Moussa Seye ñu nekk nag ci 18 safar di màggal gu mag gi di cant gu mag gi di nga xam ne borom Touba moo ko wootee lan ngay wax murid yi nga xam ne dañoo ñëw màgg si tey fii ci Touba. waaw murit yi moom daanaka ay jàmbaar lañ daanaka fii moom booy xool ñu màggal si bëri na lool macha allah dañ leen di gën a soññ rek di gën a soññ suñu bopp ju gën a góorgóorlu bu baax a baax te gën a amaat passif si liggéey bi loolu moom dañ leen koy soññ di ko soññ suñu bopp. waaw ah, lan ngay wax tamit sama mbokk soxna yi nga xam ne daanaka yu bari dañ koo aaye tey ci tuuba muy wàllum xef yi ak yu demee noonu waaye gis nañ ne ba tey bàyyiwuñu ko. ndax ñoom dañoo moom dañoo teggi ndigal daal ndax sëriñ bi daa daa joxe ndigal lan ngay wax murid yooyu. waaw ñooñ moom daanaka li leen wax du bari ndax mënoon na yow murid nga sëñ bi joxe ndigal nga bëgg a jël ndigal li teg ne indi say fi bopp loolu du jikko murid loolu daal laa leen wax moom. macha allah kon ñu bàyyi ci xel baax a baax lépp lu nga xam ne ay dañ ko fi ci Touba rek nga la waaye dañ ko bàyyi xel. Eh, Baye Moussa maanaam air yi ngay jàng ban ban nga ci ban ban nga ci gën a yëg air yëpp. toppatu bi. air toppatu bi toppatu bi maa jàng macha allah. ayca kon dañ lay bàyyi rek nga boo bokki taalibe yi balaa ñuy tàggatoo. borom Tuubaa. Cheikh Ahmadou Bamba xaadimal Mustafa xayrul xadim xaadimu rasul Ahmadou Bamba Ahmadul xadim Modou Mbacké Bari Cheikhal xadim Cheikh Ahmadou Bamba Ahmadou Nasri sëriñ bu mag bi tukki bu mag bi borom ñibbisi bu mag bi borom jumaa yu mag yi borom màggal gu mag gi borom weeru safar borom masalikul jinaan seexanal xadim sëriñ tuubaat sëriñ tuubaat sëriñ tuubaat murit yi ana ku sopp baayu sëriñ saali woo jàmbar jàmbar sëriñ bi yaa sëriñ bi yaa julli ci gigga julli galwa julli maayomba julli limarwali julli lamburana julli barasili julli kabinda julli gabon julli maayomba julli limarwali julli galwa julli lambarna julli funuba julli lumme julli asame julli kontuno jili sarsara jili idi buriki jili konki birsi jili masadi jili buyama jili konakiri jili bafali fonoba jili dawmi jili banana jili idi buriki jili karambasa jili kokki jili jeewal jili lugono jili ndar jili dakar jële ca géej ga jële ca boto ba sëriñ tuuba sëriñ tuuba sëriñ tuuba baayu sëriñ saaliwo jàmbar ja borom tuuba amul morom xaadimal mustafa sëriñ piik mooy may salaam macha allah sëriñ Moussa Seye bi neex na lool